Aminata Sow Fall la tudd boo koy dégg nag sa xel dina dem ci livre yi nga xamante ne moom lañ daan bind muy livre programme yi nga xamante ne ñii di cycle primaire moom lañ daan jàngi kan mooy Aminata Sow Fall bu ñu dinaa la xamal la tuuti ci moom mooy kan mi ngi dëkk fële ca Ndar. Aminata Sow Fall mi ngi gane àdduna ci le 27 avril 1941 ci fële ca Saint-Louis moom nag foofee fara tàmbale li nga xamante ne moo di am njàngam waaye nekkoon ko nga xamante ne ku teel ñàkk way juru la ndaxte ba mu am juróom-ñett ci ay at ci la ñàkk li nga xamante ne moo di way juru waaye kat moom teel naa yëngatu ci li nga xamante di wàllum lecture ndaka noonu li nga xamante ne moo di wàllum ndax kat moom seen kër dafa amoon li nga xamante moo di ay bibliothèque boo xamante ne ca la daan nekk waxtu woo xamante ne nit ñi ñu ngi jàng moom nag mi ngi tàmbalee am njàngam ca fële ca Saint-Louis ci lycée Faidherbe boobu nga xamante ne jamono ji moo tudd lycée Omar Foutiou Tall foofe fa doore am njàngam waaye gannaaw ba dafa jóge ñëw fii ci ndakaaru gannaaw ba xam ne ni kii di magam da doon sëy si fii ci ndakaaru moom mu topp ko ànd ak moom booba nag ca la wéyale li nga xam ne moo di am njàngam ci lycée bi nga xam ne moom la duppee kee di Vollenhoven di lycée bi ñu tuddee jamono ji lycée Lamine Gueye lycée Lamine Gueye googu fa la nekk ba ni te ne noonu la amee li nga xam ne moo di baccalauréat gannaaw baccalauréat am nag mu jël vol ni cëpp biir France foofee nag fala la wéyale li nga xam ne moo di mbiri njàngam fala la wéyale njàngam ci lu jëm ci wàllum interprétariat naka noonu ci lu jëm ci li nga xam ne moo di wàllum licence ci li nga xam ne moo di wàllum lettre moderne gannaaw boobu nag ba mu amee loolu nga xam ne moo di lissance boobu ca la am connaissance ak ki nga xam ne moo di Samba Sow mi nga xam ca Paris gannaaw ba nag ca la euh, nekk soxnaam gannaaw ba nag ba mu sëyee ak moom rek ci la ñibbisi fii ci Ndakaaru gannaaw ba nag wéyale li nga xam ne moo di ay liggéeyam naka noonu ci la doon jàngale nag ci diggante ndakaar ak Rufisque wéyale di fa jàngale ci atum nag 1974 ba 1979 nag ci la nekk membre ci commission nationale de renfor de de réforme de l'éducation de l'enseignement du euh, français et participe maanaam mu dugg tamit ci li nga xam ne moo di élaboration manière scolaire loolu tax ma doon naan livre yi nga xam ne moom la ñu bindal xale yi programme bi da ngay gis ñu def ci turu kii di Aminata Sow Fall 1979 ba cent 1980 moom noonu naka ci la bind benn téere boo nga xamante ne mi ngi tuddoon ci la guerre des battus des battus livre boobu nag moo ko yëkkati nag ba ñépp xam ko ci kan mooy kii di Aminata Sow Fall gannaaw ba livre boobu génnee nga xam ne fu ne las ko woo ci ay conférence ak i ci aju ci livre boobu moo tax mu wéyale gannaaw ba nga xam te ni moom dem na sax taxul mu toog ndaxte day wéyale diggante Dakar ak fi nga ne moo di Saint-Louis waaye tamit ci bitim réew koy woo ngir lu jëm ci li ne moo di œuvre yi na ko mu def mu cay def lu jëm ci ay conférence ba tey 1979 ba 1980 mi ngi nekkoon li nga xam ne moo di directrice ci wàllam leer lettre ca euh, ci ak ci li nga xam te ne moo di wàllum propriété intellectuelle ca fële ca ministre de la culture ñoom ñoo ko jëleen ci jamono jooju moom nag bari na ay œuvre yoo xam te ne jamono jooju bind na ko mënees na cee lire lenn ci ay œuvre yoo xam te na ko mënees na cee alimi kii di Le Revenant di roman boo xam te ne mi ngi ko publier ci 1976 naka noonu la grève des battus mi ngi ko publier ci naka noonu li nga xam ne moo di l'appel des arènes di ab roman boo xam ne mi ngi ko publier ci 1997 naka noonu ba tey jii mu di expert de la nation di roman boo xam mi ngi ko publier ci 1987 naka noonu ki nga xam ne moo di le jubilé du patriarche di ab roman boo xam te ne moom mi ngi ko publier ci 1993 naka noonu li nga xam ne moo di douceur di bercail mi ngi ko nekk ab roman boo xam ne mi ngi ko publier ci 1998 ak yeneen ci ay eh, livre yoo xam te ne wéy na di ko publier naka noonu ba ci 2017 bi mu bindee te livre bi nga xam ne moom la mujjee gis mu publier ko mu nekkoon ci 2017 di lii di l'empire du mensonge bi nga xam ne ni ab roman la boo xam te ne ci li nga xam ne moo di 2017 naka noonu 2002 publier na lu mat ñaar ci ay livres ndaxte livre eh, publier na lii di festin de la détresse bi nga xam ne ab roman la boo nga xamante ni moom itam moo ko publié ci 2005 naka noonu euh, sur le flanc gauche euh, du euh, du Belem boo xamante ni tamit moom moo ko publié ci li nga xamante ne moo di 2002 naka mil 2002 publié na beneen livre tamit mu di un grain de vie et l' espérance yooyu yëpp moom kii di Aminata Sow moo ko bindoon naka noonu lenn ci yooyu nag mu di la grève des battus bi nga xamante ne moo gën a indi li nga xamante ne nit ñi xam ko. dañ ko présélectionné présélectionné woon ci li nga xam ne moo di jury ci prix Goncourt eh, ci 1979 prix Goncourt nag maa lay fàttali ni ki nga xam te ne moo di Mouhamed Bougari moo ko gañoon ci année bee nga xam te ne moo weesu naka noonu li nga xam moo di grand prix littérature littéraire d'Afrique noir ñu ñu ngi ko ko tabb ci 1980 ci livre boobu noonu boobu noonu naka noonu leneen ci ay distinction boo xam moom mi di Aminata Sow Fall amee na ko Manes Diallo li nga xam ne moo di lauréat du grand prix littéraire d'Afrique moom laa liir léegi te mu jëm ci li nga xam ne moo di livre boobu tudd la grève des battus naka noonu ñu jël ko tamit li nga xam ne di prix international de la de pour les lettres africains pour l'appel des arènes maanaam li nga xam ne moom la bindal muy tiire boobu di l'appel des arènes moom itam amee na ci li nga xam ne moo di beneen distinction naka noonu ñu nommé ko li nga xam moo di docteur honoris causa naka noonu tamit eh, booba mu nekkoon ci le vingt cinq mai mille neuf cent quatre vingt naka noonu ñu élevé ko li moo di moo di chevalier de l'ordre national du mérite naka noonu ñu élevé ko waat ci chevalier des palmes académique naka noonu ñu élevé ko ci euh, chevalier de l'ordre de la Paléiade naka noonu ñu élevé ko waat ci chevalier de l'ordre nationale du Lion du Sénégal naka noonu ñu def ko li nga xam ne moo di euh, commandeur de l'ordre des arts et des lettres naka noonu mu jël li nga xam ne moo di grand prix de la francophonie de l'académie française boobu nag min ko am ci li nga xam ne moo di ci 2015 euh, bi nga xam te ne ca la ñu génn am na ay livres yoo yoo xam te ne tamit eh, publié na ko ci lu jëm ci wàllum filmographie mu mel ni li nga xam ne moo di l'appel des arènes eh, ñu ngi ko génne ci 2005 naka noonu li nga xam ne moo di eh, visage nekkan boo xam te ne court métrage la boo nga xam te ne tamit publié nañ ko waaye la l'appel des arènes mi ngi nekkoon moom long métrage boo xam te ne kii di Aminata Sofal moo ko bind ba tey ji nag ma nga wéele ak dundam ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool naka noonu moom nag mi ngi am euh, lu matt juróom-ñaar ci ay tuut tànk yoo nga xam te ne kiñ ci gën a xam di rappeur bi nga xam moo di Abbas mi nga xam te ne ku ne xam na ko ci am mbindam ak it ci rabam naka noonu nag ñu ngi koy ñaanal moom euh, soxna Aminata Sow Fall jamono ji mi ngi fële ca Ndar Géej ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram lii moo nekkoon li nga xam te ne moo di seen rubrique portrait bu ngeen bëggee keneen bind leen ko ci commentaire yi jaa ngeen jëf